salaam salaam sama xarit yi sama àndandoo yi sama am jàmm yi bàyyi yéen a ngi am jàmm maa fi ñëwaat doon seen xarit seen euh, àndandoo seen lépp seen jigéen euh, indiwaat fi lu bees dàq euh, kii di sama sœur bi ñëw fi seet si ñu ma bàyyi ko mu nuyoo na def soxna si. waaw ah, si bu baax a baax a baax. ba yaa ngi am jàmm bu baax. maa ngi dama bëggoon nga wax ñu noo def ba am sañu contact ba mën a teew fi tey. man de dama. dama leen doon suivre ci Facebook bi li ngeen di wax mu intéress mu intéressant trop ma daa nekk xaaral ma jël seen numéro ma contacter leen. ah d' accord ci Facebook bi la amee suñu numéro d' accord mais dama bëggoon tamit nga wax leeralal askan bi lan moo nekkoon say jafe-jafe ba nga ñëw tey seet suñu. waa sama jafe-jafe de lenn rek la dama nekk ak benn xale bu góor ñuy génn trois ans. ñuy ànd si ànd bu rafet nag mu won ma dëggu fulla ak fayda durant moment boobu yëpp nag suñu famille kenn xamu ko léegi nag benn jour ñuy waxtaan mu ne dafa pare pour takk ma ma ne ko ah, loolu de nouvelle bu neex la mu ne ma léegi nag dañuy dem waxtaan ak suñuy parents bi ñu demee nag ku nekk dem say parent wax ak moom man bi ma demee ma wax samay parent ñu rafetlu ko lool mais après dañ ma laaj kooku lan la ma ne ko ah kooku de dañ dëgg fa tëgg la ñu ma leen waxee loolu nag ñu daal di bañ ñu ñun ñoom moom du ñu may seen doom tëgg ndax seen famille kenn du ci rax. ah loolu moom doy na waar di génn nag xale bu góor pendant trois ans te say waajur xamuñu ko ah waajur yi des fois day leen bàyyi xel ci xale yi day leen bàyyi xel ci xale yi en plus nee nga ci biir wax ni say waajur nee nañu yow géer nga mais sa copain bi ngay àndal tëgg la. te tëgg ak géer ñoo ànd ndax ñu rax seen famille ndax dem ngeen kër ku góor ki tamit waxtaan ak ñoom. waa bi ma bi ma samay pa bi ma samay parents waxee ba pare dama see waxtaan ak xale bu góor bi léegi xale bu góor bi moom tamit mu ne xaaral mu waxtaan ak ay parent am mu dem waxtaan ak ay parents am parents am tamit daal ni leen ñoom tamit seen famille du rax loolu lañ ko wax. Ah, en tout cas waajur yi war nañoo xoolaat de. léegi nag yéen lan ngeen décider entre yow ak xale bu góor. a ah, ñu ne wax dëgg fa yàlla depuis bi ñu àndee ba léegi suñuy parent xamuñu ko de mais mosuñoo mooy yàlla dëggu ci dëggu lañu ànd fulla ak fayda léegi nag mu ne ma comme que loolu am na ba léegi nañ dem wuti solution ñu xool nit ñi nan lañ ci mën a dimbalee moo tax nag sama tànk yi ma indi ko fii tey. mais tamit est ce que dem ngeen xool bàjjenu gox yi wala kilifa yi nga xamante ni ñi nga ci koñ bi yor seen xel yu rafet di jàppale ndaw ñi di jàppale mag ñi est ce que dem ngeen fa gëstu waxtaan ak ñoom bu xool ba xam nag nit koo gis am na ku muy ruus peut être que boo leen demee waxtaan ak ñoom mën nañ leen dimbali. si si demaguñ nag mais nekkoon na suñu xel dañ ñëwoon nañ ñëw fi ba pare wax leen ko après tamit ñu dem waxtaan ak kilifa diine parce que yaakaar naa ni parents yi lu ñuy seen diggante ñoom. moo tax ñu ne après dinañ fa dem waxtaan ak ñoom tamit ñu aide ñu loolu lañ gis. ok waa kon askan bi ñoo ko déggandoo suñu sœur bi ñëw exposé ñu problème mi ñu war koo mën a jàppale ma leen di ñaan ku ci nekk nga génne sa xalaat parce que loolu lañu ñuy séntu ci yéen pour ñu dimbali leen parce que c'est pas parce que ñoom kii géer la kee tëgg la waruñu ànd déedéet ndax armel ya boo ca demee ñëpp benn lañu ñëpp ci suuf lañu jëm kon nag géer ak géwal ak tëgg loolu defe naa ni teguñu ko fenn ñu jàppale suñu sœur bi commentaire ci waxtaan ci ba ñu am lu ñu bëgg ndax ay nit di ànd trois ans te dara lu ñaaw mësul am seen diggante waa yi nañu xoolaat seen bopp benn bi ci topp mooy trois euh, nee nañu mësuñu def lu neexul yàlla te jii mën nañ leen ko bañal ñu wëlbatiku def lu neexul yàlla doom judd ci bu ci doom juddoo deret rax na kon kay nañ leen ko euh, daganal kay ñu ànd ci jàmm ma leen di bàyyi ngeen xalaat ci bu baax commentaire yi ndax soxla na ko ndax da koy xool da koy déglu da koy liir moo moom moom ak copain bi yëpp ñu jàppale leen ci seen combat bi nga xam ne moom lañu ñu nekkee waaw soxna si kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci sa teewaay fii te am nañu yaakaar ni lépp loo xam ne jooytu nga ko fi ndax amoon nga yaakaar bi ngay ñëw yaakaar boobu ñuy ñaan mu bañ a tas ñu jàppale la ba nga am ndam ci li nga bëgg waa comme ni nga ko waxee rek comme que dama am yaakaar ba ñëw fii dis leen sama soxla maa ngi ñaan yàlla bu yaakaar tas parce que loolu rek moo ma yitteel moo fi indi man tamit maa ngi leen di remercier bu baax ci ni ngeen ma accueillir ma dis leen sama soxla ngeen jàppale ma si franchement li ngeen def am na solo torop merci beaucoup merci sama gars yi ñu ngi leen di bàyyi ba beneen yoon yaakaar ni daañu indiwaat di leen lu gën a bees leneen lu gën a neex ngeen jàpp comme jàpp ci combat bi comme ni ma leen ko waxee commentaire leen partager leen aimer leen émission bi gën a jëm kanam ngeen gën ñu may doole ñuy gën di gëstu ndax fekk yéen a gi ñëw fekk ñu ngi leen di gis dañuy dem ci kanam duñu mës a en jërëjëf merci beaucoup léegi nag xool nga gis nga ma lay ñaan leen mooy nga partager te aimer